الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلاة وسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي لين نيو باخ دي لين سيار دي لين دوكل di leen tatagal ci weeru mawlidu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy awal di weeri gàmmoo nga xam ne la fan bi njëkk mu nekk weer woo xamante ni barke la bu bëri ay njëriñ bëri ay tiyaaba ak i faggu ay njëriñ yu ci nekk nga xam ne weer ci la mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gane woon àdduna weer woowu nag ñëw na ñu koy tertoo pour màggal yonent bi sallallahu alayhi wa ñun nag ñuy def jotaay boo xam ne ilaa daaru salaam lañ koy tuddee waajal gàmmu ñu koy defee ci yawaaqiitul faraid chaque jour ñu jàng ab limite dalee ko ci boppu téere bi ba keroog gàmmoo ga da ñëw ñu soog gàmmu ji jëm daaru salaam dëkk bu tedd ba mooy dëkk Mawlana Seydi Hadji Mandoum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag yàlla mooy ki ko njëkk a màggal hmm? ndax wa kaana alayka azima loolu ko yàlla ne wax kon yàlla mooy ki ko njëkk a nga ngëneelu yàlla ak mayu yàlla yi nga xam ne moom la def ci rasulullah loolu lu lu rëy la lu foor la loo xam ne dooye bi kenn xamul ni mu toll moom sayyiduna muhammad am na nag ñoo xam ne weer gàmmu bu jubisee ñoom dañ ci am nakaru xol ak xatu xol di wax ne màggal ko bidaa la te nga ne yow ab jullit nga yonent bi nga xam ne lépp lu am moom moo tax mu am mooy sangu àdduna di sangu alaxira mu gën ñi ne àdduna ak moo gën xit alaxira kooku weeram teru ñu ñu koy tatagal di ko màggal di ko bàkk ak ni ko yàlla taggee gën ci moom ne yàlla dafa ne wa duhaa wa layli isaa saja maa wadahaka rabbuka wa maa xala loolu doy boobu yunt bi rek moo ko am da daa ne isaa hawa maa dalla saahibukum wa maa وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كوكو سيدنا محمد رك موي كوم تي اي غنال يو بري يو خامني يالا مكو كو جوخ دايو بي دارا غنول ماغ يالا نقول ان كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله بوين بغي يالا بغي لين توب لين محمد سيدنا محمد بوين كو ديفه يالا بغي لين كوكو كون ويرام بو تيرو نيت ني وار نكو ماغال ديكو تاتا كان وأنا مجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دار راو جي فخه لم لون ديغلي اك يون يم اندي ترال كو اك مبولم يم بغون اك مبولم ييغا خامن دان نكو ديف دان كو ديغلي نيون خيتامي نانتي تنكو لول موي لي جيتو جي مغال جي موتي غنا فور ايتام ام دا سيدا جي مان داو نون يحمر بالحق والمعروف امته wa rifqi wal xafi war zabri wal imaani Seydina Muhammad kon lu baax rek loon digle ak dëgg rek ak lépp loo xam ne moom lu jullit war a mel hmm? ci anam gu ne daan na ko ci digle kon kooku weeram bu teroo dañ ko war a teero noo xam ne tey bu feeñaan jamono lu jam am ak njéppite ci ñun moom Seydina Muhammad kon ngëneel yu ko yàlla may bari na lool jagleel yu ko yàlla jox bari na lool weeram na bu teroo kon ñun ñëpp nañ ko ànd di ko màggal ndax teew fu ñu màggale rasulullah sallallahu alayhi wa tiyaaba ji si ne kenn xamul ni mu toll yàlla ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yàlla ak i malaakaam ñoom ñu ngi julli ci yonent bi daa iman daa iman ah? léegi nag yàlla ne yéen ñi gëm sallu alayhi lii moo taslima kon yéen ñi gëm julli leen ci sayyiduna muhammad loolu mooy julli gi mooy màggal gi hmm? kooku rasulullahi sallallahu alayhi wasallam rek la ko yàlla jagleel te yonent bi alxuraan dafa ko ne annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim yonent bi sallallahu alayhi moo gën a am droit ci ci yéen ku nekk yonent moo gën a am droit ci sa bopp hmm? sañ-sañ bi mu am ci yow yow amoo amoo ko sa bopp loolu yonent bi rek la ko yàlla jagleel hmm? kon ci ngëneel yi ko yàlla jox dafa doy waar hmm? nga xam ne yonent bi eh, moo gën ci lépp lu yàlla bind moo xam malayka nga moo xam jinne nga moo xam nit da lépp lu yàlla bind rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo la gën te moom ci leeram lañ la bindee moo tax sax yàlla bind la kon kooku wéram bu téro nañ ko way hmm ta magal yunt bi amul bis amul limit, amul waxtu amul wér amul at hmm? sa su nek la mom sayyiduna muhammad ana kay dañ ko baxo diko ko def bu gàmmu jotté ñu barkeelu ci année ah, oh, bi mu juddoon ak wér bu mu juddoon ba fukki fan ak ñaar way magal yonent bi sa su ne dafa war ci jullit bu nek ndax ko xam motax ngay dox motax nga gis moo tax nga mën a toog moo tax nga mën a def lépp moom Seydina Muhammad hmm? kon kooku amul lu ko julli ñu mën a fayee hmm? ndax moom Siraj Omar Ndaw dafa ko ne ah, miftaahu rahmatihi miftaahu jannatihi xabibuhu alamul imaani la tahimi mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy caabi yërmande yàlla maanaam yërmande yàlla bu dee ab néeg la buñ war a dem caabi bi Sayyiduna Muhammad moo ko yor kon kooku eh, màggal ko fexe def lépp loo xam ne dana war a nga jege ko kon kooku dafa war ci jullit bu ne hmm, yërmande yàlla ni mu toll Sayyiduna Muhammad yow caabi ji hmm? yemul fa waaye mooy caabi aljanna Sayyiduna Muhammad moo ko yor yonent bi sallallahu alayhi aljana yàlla caawi ji moom mooy ki ko yor kon kooku kay ñu daje da ko màggal ngir ne weeram bi teru na kooku jërul déglu bawkat yi wax nan biddaa la wala leneen la moom sayduna muhammad te mooy sopp bi yàlla boo xam ne gëm yàlla maanaam yunt bi salaam mooy màndarga bi ndax mënoo gëm yàlla bàyyi yunt bi mën a topp yàlla te topp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hmm? boo gëmee yàlla te gëmoo Seydina Muhammad yàlla bëggul boo toppee yàlla te toppoo rasulullah yàlla bëggul bu bëggee yàlla te bëggoo yonent bi yàlla bëggul ñoom ñaar ngay boolante ation allah wa ation gis nga ko yàlla fu mu waxee rek dana lënkale turam ak tur rasulullah ngir fonk gi mu fonk loolu mooy na abibullah bu dem ba nodd sax turam ak turu yàlla lañ lënkale ci nodd gi li xam booy taayee sax nga ko tudd turam ah? bépp jëf jooyu def te boole ci rasulullah yàlla bëggul xataa bu booy ñaan te julliwoo ci moom yàlla bëggul du nangu kooku yunt bi rek la ko yàlla jëgleel hmm? kon kooku mooy suñu yonent moom la yàlla yebal ci ñun joko alquran mu indi hmm? moom rek lañu yàlla royloo ku dul moom yàlla royloo wuñu moom la yàlla teg suñu kanam na nañ ko teg bët lum ñu def loo ñu def lum ñu tere ñu bàyyi hmm? loolu rasulullah sallallahu alayhi rek mooy ki ko am moom rek moo ko am keneen amu ko te yom fa waaye wal Mustafa asdaqu aqwalin fi iddatin li muslimin wa waidi ahli awdaani sayduna muhammad mbooleem kuy wax moo la gën a dëggu kàddu mbooleem waxkat rasulullah moo la gën a dëggu kàddu hmm? kon waxam rekk mooy wax joo xam ne fu mu jógee dëgg la bu defee sax dëgg la nga toog ci pegam def waxu ci dara dëgg la nga wax inti bi dégg waxu ci dara loolu dëgg la lu baax la loolu moom rek la ko yàlla jagleel moom Seydina Muhammad hmm? te moom waxam ndax lépp lu mu dëgal jullit bi mooy aljana ak i teraanga lépp dëgg la bu jullit bi nekkee ëllëg loolu lay fekki lépp loo xam ne Seydina Muhammad dël na ko yéeféer bi muy chrétien muy koo xam ne gëmul yàlla loole yàlla yunt bi dël ko muy mbugal muy ay musiba loolu dëgg lay doon ci moom kooku Seydina Muhammad moom dem wekk ko am hmm? te yunt bi salaa salaam amul benn du yenantu wala benn mursal wala benn waliyu wala aqtaab lu da nekk ci ron Seydina Muhammad sallallahu alayhi ولا نبي ولا غير ملائكة إلا وتحت عبيب غير عدنان نبي du benn nabiyu ah du ak du jaam malaayka malaayka yi nga xam ne ñoo gën sax ci malaayka yi amul kenn koo xam ne féete nga kaw Seydina Muhammad ci ronam nga nekk waxuma la ne ci ronam sax waaye li nga am ak li ngay jot ak ni nga mel Seydina Muhammad moo tax nga mel ko wa kulluhum waaqifuna inda zaahilihi muxtarifiina min al bahri wa dayfaani ah sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam i nga mboolem ñoom ñëpp moom ñoom yonentu yëpp yàlla yónni wala mboolem ko doo yonentu muy 1124 vingt yi yàlla génne ci 313 def leen ñu ay yonentu mu yéen yónni leen ku ne mu am fu mu ko yebal léegi bil eh, bii 313 yooyu yàlla génne ci vingt 25 personnes defal leen ak xusuusiya tudd leen ci alquran bil 25 yooyu yàlla tànn ci juróom ñuy ulu asmi wala boog ñeent Seydina Muhammad juróomeel leen ulu asmi yooyu yàlla tànn ci kenn muy Seydina Muhammad ne moo leen gën ñoom ñëpp hmm? kon kooku moom rek mooy ki ko am hmm? kon ñoom ñëpp lu ñu mënti am ñu ngi koy jëlee ci Seydina Muhammad muy mbaax muy njub ci Seydina Muhammad lañ koy jëlee muy mu mu sa yañ amoon bu dóodoo Rasulullah duñ ko jot lépp moom la moom Seydina Muhammad moo tax borom Daaru Salaam noo ko miftaahu maxfiratin miftaahu mahrifatin bawaabuhu alamul yaqiini sul xasami e, mu ne sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy caabi njëggalug yàlla yi nga buntu njëggal sayidna muhammad moo yor caabi ji hmm? loolu foor na de rasulullah moo yor caabi bi njëggalu yàlla kon léegi kooku ana ñu koy màggal nga am loo ci linkaar wala mu naqati la yow nga ne jullit nga est-ce loolu dëgg la waxoon ne njëgalu yàlla Seydina Muhammad moo yor caabi ji buntu xam yàlla bu fekkee néeg la Seydina Muhammad moo yor caabi ji moo tax mënoo am yàlla te jaaroo ci moom mënoo xam yàlla te jaaroo ci buntu Seydina Muhammad mooy mbëkkaneeku yàlla bi moom Seydina Muhammad akamtu ko ajiban leel xalqi an alaqin min subaatika si la jomar ndaw eh, yonent bi salaa salaam waxumal dara waaye moo nekk buntub yàlla bi te it yema fa waay ngi nga yëqiin yéen tuuti nekk màndarga bi hmm? maa nga am yëqiin bu wóor sa diggante sa borom mënoo ko am tajaaru Seydina Muhammad te ilmul yëqiin xaynul yëqiin xaqul yëqiin ñetti maxaama yi yi mënu caa yegg tajaaru Seydina Muhammad moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla dafa ko jiital ci mboolem lu mu bind فأنما قدمه الله مختارا على الكبراء نورا عزيزا وحبلا غير منسرم moom Seydina Muhammad ndax yàlla yàlla dafa ko jiital ci mboolem ñi yàlla tànn def la ñuy ay yonantu Seydina Muhammad la yàlla jiital mu ne seen kanam ku topp ci kawam ñu rikki la sa diwaan boobu moom Seydina Muhammad mu nekk leer goo xam ne not na mboolem leer yi Seydina Muhammad buum la goo xam ne du dagg du kanji du rewentu ko ku ci ngëpp la budda da nga am njigalu yàlla danga am ngërëmande yàlla ku toll noonu weeram teru ñu dajee fii jël téere bii te waaxilu faraay yi nga xam ne Mawlana Seydi Aji Mandaw moo ko woy ñu déparé ci ngir jublu ci màggal Seydina Muhammad loolu teewee ko ndam lu rëy rëy la teewee ko ak texe la teewee ko ak fajoo aajo la yént moo xewle kenn xewlewul ah? kon ñun ñëpp nañu ànd diko magal màggal di def émission bi diko wajalé ila daru salam hmm sayyidna Muhammad mo xew ki tax ñu bind la ko xana kuy taxé mo ma tax nga mën a texe loolu yënti wéram moo na wa fadilan taahiran mufaddalan alanan wa fatihan muhliqan miftaha si xidami Seydina ñëwoon dam mu ne rasulullah yi mooy faadil mooy maanaam moo gën lépp lu yàlla bind waxuma la gën sax waaye may yàlla yi moo ko yor kum joxun moo doo am ndax moom muy séddale hmm? ndax nee na wallahu muxtil ataaya wa huwa yaxsimuha li xalqihi kullihim ahdalu awdaani moom sayduna muhammad yàlla mooy joxe waaye yent bi mooy séddale te yent bi waxuma la waaye moo gën a màndu balaas ku nekk sa cër dana la ko jox ku nekk li nga mérité danga ko am hmm? du xëy kenn ku nekk li nga yàlla moom la lay jox Hmm? moom sayduna muhammad yom fa waa yonti bi taahiran la dafa laab ci juddu laab ci askan laab ci jukko laab ci famille laab ci jëfin hmm? yonti bi léppam dafa set ci askan aadama ba ci abdoulaye mi ko jur hmm? ay maam yu jigéen ba keer ba ma yegsee ci ameen mu jur ko ñëpp dañoo laab sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yemut fa waaye mu fàddal la yàlla dafa ko def mu gën ñëpp xam nga nit mën nga am gëneel waaye doo ko am ci ñëpp yonent nag dafa nekk ku gën ñu gënal ko ci lépp te gënam gi feeñ na fan nga nag xanaa bañ ak nangu waaye yonent moo gën ñëpp moo gën ñëpp nag lépp lu yàlla bind moo la gën moom Seydina Muhammad yonent bi waxuma la sax waaye waaye mooy Faatiha mooy alfaatihi li ma uxliq mooy lépp lu tëju woon Seydina Muhammad mooy kii ko bi amul mbindeef bi dafa tëjoo woon moo tax yàlla tijju ko hmm? moo tijji aljanna xéwal yi warsag yi ak lépp luy ñëw Seydina Muhammad moo tax mu ñëw hmm? moo tax mu ñëw ba tey yonent bi mooy mooy mooy ki tijji lépp lu tëjoo woon caabi yàlla ji Seydina Muhammad mooy ki ko yor moom rasulullah ndax yonent bi gis nga fépp foo xam ne yàlla nekk na fa yàlla yonent bi nekk na fa xabdu di jam abdullah moo abdullah la njëkk tuddu abdullah bi ko yënt bi di tudd foofu maxaamu yooyu mbindeef fa laal dara hmm? ndax bi yalla nekké mom rek ci pay hawul ah mom dong min huwa bo boobu bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekk ci maqama siru yalla toxaloo ci pay hawul jëm ci Seydina Muhammad toxaloo ci maxaama sirru ñëw ci maxaama ruux yàlla toxaloo ci péewu laahut jëm ci péewu jabarut Seydina Muhammad toxaloo ci maxaamam ruuxu jëm ci maxaama aqalu moom rasulullah yàlla toxaloo ci péewu jabarut dem ci péewu malakut yent bi salaay salaam toxaloo ci maxaamam aqalu jëm ci maxaamam xalb Seydina yàlla toxaloo ci maxaama euh, pays ba nag dem ci pays mulku bi nga xam ne ci la mbindeef feeñee génn ñu nekk mbindeef yonent bi salaa salaam toxaloo ci maxaamam xalbu dem ci maxaamam nafsu boobu yi maxaama yi ci la nekk abdullah xijaab yooyu moom la gars yi di di di junji naan fukki xijaab la ak ñaar xuus na ko waaye yooyu boobu yonent bi leer la gannaaw bi mu nekk génne ci Abdullah ci la ñëw ci maqaama Habibullah moo tax Habibullah boobu ci la rawee lépp lu yàlla bind ñu ne Moussa kalimullah Isa ruhullahi wa kilmatuhu Adama safatullah Ibrahima xalilullah yéen tibbe gañe na yàlla na ko Habibullah hmm? Habib boobu doole yëpp hmm? bokk nag ñoom parce que mboolem gaa yi ku ci ne maqaam bi nga taxawee ñoom da ngay laaj yàlla soo ko def yonent bi moom yàlla koy defal ba pare soo ko wax na def naa man moo tax bokk da ñoom ah gisa nga bi may nekk si maqaam dulaay laqad kaana abdallah laa habda wa kullu abidin taabiuna li xalqihi boobu kon tara fee ñun hmm? nga daa ko la ñëw wa sallam mooy ram maanaam balaa kenn daram Seydina Muhammad mooy kii ram yusafa al hibbu qabla kulli si rutabin min al akabiri ulil asmi wal himami Seydina Adjuma jaar yi nga xam ne ma ñoom la gars di jàngale waaye moom baatinu Seydina Muhammad lay jàngale ak baatinu baatin ba hmm? dafa yéeme ñooy tagge rasulullah mu ne ëllëg yawmal qiyaam mooy kii ramm balaa benn borom daraja wala benn borom garaad di di ramm Seydina Muhammad moo jokki ramm hmm? ndax doo xool ëllëg bi gaa yi jaaxle yuntu bu nekk ñu dem ku ne joxe ngànt Seydina Muhammad moo jokk kante di jàmm hmm? kon yonent bi waxuma la dara waaye mboolem yonent yi ñëpp moo nekk seen sang ci yàlla mboolem ku ragal yàlla Seydina Muhammad mooy seen njiit hmm? yonent bi sallallahu moo nekkoon gaynde jaamukat xërëm yi hmm? ndax mooy ki tas yëpp bi muy feeñ booba kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah nekkul ci kaw suuf hmm? mu ñëw taxawal di woote laa ilaaha illallaah pour na na ñëpp nangul yàlla kennal ko mu dëgër këcc lu ne wax nañ ko lu ne yàkk nañ ko musib bu ne natt bu ne xatal bu ne def nañ ko sayyiduna muhammad ci bi muy wootee nañu wéetal yàlla lu ne def nañ ko ko Hmm? waaye mu nekk biir màkk muñ loolu yëpp bañ a googu noonu ak googu moo tax mu garee dem Madina moom Seydina Muhammad hmm? te xool dundam bëriwul soixante-trois ans la dund ci bi may génn àdduna li mu gàtt gàtt bàyyi na fa téeméeri junne saxaaba ak fukki junne ak ñeent ñoo xam ne bàyyi na leen ci diina te bi may ñëw kuy wax asaroon la daa nekkul ci kaw suuf kooku kenn la de kooku kon nañ koy màggal dañ ko bëgg dañ ko fonk hmm? ndax amul kenn koo xam ne sa gëm yàlla mën naa mat lu du rasulaay dafa la gënal sa bopp yow gënal la sa baay gënal la sa ndey gënal la sa soxna gënal la sa doom képp koo xam ne rasulaay gënul la ñii ak mboolem nit ñi maanaam gëmu ko yàlla loolu hmm? la ko waxee ci hadiis moom sayyiduna Muhammad naa alayhi wasallam hmm? yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax si ma doon ko da ko taggee waaye comme tey suuru ubbi la mu nekk bis bu njëkk bu ko defee dañ nii lañ koy continuer chaque jour rek ñu am fu ñu ko yóbbu ba keroog fukki fan yaa ak ñaar ñu dem gàmmu ji tëj ko di gërëm mboolem ñi nga xam ne teew nañ ci fekkee ko hmm? eh, di nuyu sëriñ Modou Diouf nga xam ne tey lii nii ci mbaaxam la génnee mu taxawal ko xamna sax mom mo waroon ne def waxtan bi mi dafa ñëwul mota mota moo tax ñu barkeelu rek waaye nekkul ñu ñëw def waxtan bi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh